salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yi seetaan MKTV bu baax a baax di leen ndokkeel xam naa li ngay laaj ci fu ñu toll ci waajtaay wi gis ngeen bu ngeen ñëwee gis fii ci jumaa ji ci esplanade bi ngeen xam ne jumtuwaay yëpp ñu ngi koy pare ngir fas yéene dundal guddi gi. Euh, ni ñu leen ko waxee nag ci suñu waxtaan yi jiitu daayira Muxaddamatul Xidma euh, ak bu Rawdu Rayaahiin ñooy ànd ngir dundal guddi gàmmu fii ci jumaa ji ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha. incha allahu rabbi fas ko yéenee defee ni ko sëriñ bi daa defee ci barab yi daa gàmmoo moo xam Ceyeen la moo xam Njaareem ak ba ci fii ci Touba muy dundal ko ci taxsimuhu bi sunnati naa lil jannati bi isdiyaadil minnati li muxlisin muasami incha allah ni ko sëñ Saliou daa waxee sunna nag moom mooy aw yoon rek dundal ko ci sunna mooy dundal ko ci aw yoon bu soob yàlla danañ fas yéenee tàmbale ko ci programme bi nga xam ne moom nañu ñu muy incha allah vingt rek su tàmbalee waxtu jotee kuréelu euh, danañ tàmbali waaye sëriñ Mayib sëriñ sëriñ Cheikh Gueye Mayib dana jàng bu noppee euh, sëñ Bolle Mbaye jàng bu noppee kuréelu Moukhaddamatoul Khidma bu ndaw bi incha allah 23h danañ tàmbali waxtaan waxtaan bi nga xam ne nag moom la ñuy ubbee guddi gi sëñ Cheikhouna Abdou Wadoud moo koy def ñu war a waxtaan ci sëriñ euh, yonente bi sallallahu alayhi ak ay saxaabaam loolu yaakaar naa dana am solo bu defee nag su minuit jotee ci la ci la war a tàmbali nag mi Euh, ci niñ ko tëralee euh, barsan jiyu ak ñetti kuréel yi ñooy jàng muy jës bu mooy bu mu xadimat euh, nga xam ne sëriñ bi ni mu ko daa defee mooy tey jii la guddi fukk ak ñaar ci gàmmu moo tax fukki kaamil ak ñaar lañ koy ubbee mu ànd ak diiwaan yi sëriñ bi def muy quraan ya ak diiwaanu salawaat diiwaanul da yooyu yëpp day ànd ci biir njàng mi su ko defee su waxtaan wi tàmbalee 23 heures benn waxtu lañ ko jagleel minuit zéro ñu tàmbali kuréel yi ñetti kuréel yi tàmbali ak barsan ji euh, kuréel bu nekk fukki bayit ak ñaar lay jàng muy jas bu ak mooy ak muxadimat nga xam ne loolu tamit day dëppoo ak euh, guddik fukk ak ñaar day dëppoo su ko defee daaj yi koy daaj nag daaj yi cosaan yi lay doon muy daaju sëñ Masamba bu jas bu lay doon mooy bu tamit mooy daaju cosaan ba muxadimat tamit daaj yi bëri na waaye daaju cosaan muy daaj boobu nga xam ne mooy daaj bu dëgër bi ci lañ koy daaj su ko defee barsan bi ki koy jiite mooy Cheikh Ahmadul Bari mu Cheikh Ahmadul Fadal mooy jàng su noppee Serigne Afia bu sa imaam dana jàng moom it ak Serigne Abibullahi Jatara euh, noonu lañ koy fanaane ñuy yaakaar tamit nag incha allah bu ñu demee ba fajar des ay minutes yu ne néew Cheikh Mamadul Muntaxa dana fi ñëw incha allah euh, ñaanal ñu euh, waxtaan ak ñun seede it liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne bi fii ci barab bi. incha allah su jullee ba noppi ñu àggale njàng mi ba bët set noonu lañ ko fa seenee dundale guddi gi ci biir njàng mi nag ni muy doxee ngir ñi nga xam ne dañuy roy gàmmu gi ñu xam ne barsan bi suñu jàngee benn bunt danañ wax atri lahuma xabrahul karim bi arfin sasin min salatin wa taslim fukk ak ñaar wala juróom-ñaar su fekkee ne fukk ak ñaar yi bari ci kiy jàng wala juróom-ñaar bu defee bu noppee wax allahuma salli wa sallim wa barik alayhi moom it fukk ak ñaar wala juróom-ñaar su ko defee doog jox kuréelu jës bu mu mu tàmbaliwaat ci biir loolu noonu lañ koy bu ñu demee nag ba àgg ci bunt bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu di feeñe nag nga xam ne euh, borom barsan dafay nuyu yonente bi ay nuyu yu wuute di julli ci moom foofu nag la ñuy bëgg mbooloo mépp jóg taxaw muy asalaamualeyka yaa xayral anbiya asalaamualeyka yaa safiha al umma su ko defee mbooloo mépp dañuy jóg taxaw ñoom it naan sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne noonu lañ koy àndandoo ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam gane si àddina nag ñu doog a delluwaat ci beneen bunt bi nga xam ne ci la ñu di ko sargal ci ñëw gim ñëw tàmbali nag di nettali ay xareem ak yu demee noonu te loolu lépp boo ko dee xool bunt bu ñu ni ko bi di waxee ci jës bu ni ko sëriñ bi di waxee ci mooy bu ak loolu incha allah noonu lañ ko fa yéene dundale su defee kon ñu ngi soññ bokk yëpp rek ñu teel a ñëw te teewlu te moytu jaxasoo góor ak jigéen bi ànd ak dal sol col ko gu yiw te kenn ku nekk nga nekk ci dara ku munta jàng bu ñuy wax atrillahu mën na ñëpp di aw bu ñuy wax allahuma salli wa salli wa barik na ñëpp di aw danañ insérer euh, li ñu aw ci écran yi ñëpp di ko gis su ko defee góor ñi féete penku ñoom ñëpp jigéen ñi féete soow ñu yor seen kurus di di liggéey ni ko noonu tamit baas bi nga xam ne moo nekk suñ day joor di baas isbu tarxee bi euh, ñu ngi ciy sant sëriñ Yuusu moom it jox na ko Muxaddamatul Xidma ngir jigéen ñi tamit foofa it dañ leen koy jagleel dañ leen koy jagleel ñoom it foofa seen barab la ci ginnaaw tamit ginnaaw baas bu mag bi nga xam ne ren jii gis ngeen bas bi nga xam ne def nañ ko fi euh, moom it euh, dañ koy jagleel góor ñi bu ko defee euh, jaxasoo du am nit ñëpp ànd ko dal mën a dund guddi gi li nga xam ne li la ci sëriñ bi digle muy dige ci muy taxsimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati maanaam suñ ko màggalee ci sunna dal danañ danañu danañu tab bi àjjana bis yaa li muxlisin muassami nag dafa am solo ñu bàyyi ko ci xel mooy ki ko sellal ki sellal màggal gi mooy mën a am àjjana ju sell jooju kon nañ ñëpp ñëw ci ak sellal euh, te te jariñu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu